ñu doon laajte agsi na Assane ànd ak waa Bawol production. balaa balaa balaa nga. dana ñëw. Bébé Saloum. si émission waaw mbër ñu ngi lay eh, ci direct baal rek naan commencé na ba commencé na waaw. waaw. ñu ngi lay ziar Bébé Saloum. ñu ngi lay màggal bu baax Mouhamadou Lamine. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant Cheikh Abdoul Karim Mbacke Naar moom aw fay. macha allah alhamdulilah naka coono yi. waay sant rek sant rek ak na ci partie bi. première partie bi waxataana woon nañ mbiru mbirum Bébé Diène Assane Ndiaye ngi nii moom moo war a tëgg le 22 mai incha allah rabbi stade Iba Mar Diop Bébé Diène yow nga dégg ñu ni bàyyi nañ ko bi nga yëgee nouvelle bi Bébé Saloum noo ko dundee ndax yàgg ngaa wax ci ay mbiram. su mhm. mhm. Mhm. la de. fekkee dëgg di nga xamoon ci man dañu. Hmm. tey damaa bég ba añuma ma. ndeysaan. kontaante bi ma kontaanoon. Hmm. ca ba may génn. Hmm. ba mu jural may jooy tey laa ko kontaanaat. ndeysaan. ba nii may waxee ak yow ni laa ndax kaw Cissé génnagut. est-ce que. te duma ma tekki samay rajo fii ak génnagut moom it. ndax nag jullit moromam loolu rek la ko mënal Bébé Diène suma rakk la Kaaw Cissé suma rakk la. am ñu ma sut baat fopp am ñu ma sut kàddu fopp waroon di wax la ma doon wax bu ñu ko waxoon mooy ëpp impact que sama wax man. Mm-hmm. waaye waxuñu ko waaye man mi nga xamante ni yàlla dogal na moom bu dëgg dee moom may njëkk a dee. Mm-hmm. jéem ci ànd ba tey sama borom woyofal rek ñu ciy gërëm particulier Assane Ndiaye moomu nga xam ne man xam naa ni guddeeg bëccëg nelawul ngir booy. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla damay wax te yàlla tax man nag du ma du ma sangal kenn ay xaram mais lu ma gis dama koy wax. mooy nit ko ñàkk client nit koo xam ne xam naa di début à la fin kenn kenn gënu ko cee doon jàmbaar barki Cheikhul Khadim mm-hmm. ma xam mbégteem xol tey lool di ñaan sa borom lii doon cangat ci moom doon ngëneel doon mbégteem mu ëpp ka bi ma taxawee man daam war na Serigne Touba dama génn kaso sama lépp baax barki alxuraan macha allah damaa dugg si fii Europe barki Serigne Saliou boo moytul ma bàyyi làmb ndax ñu ngi may ubbil porte yoo xam ne su fekkee ni du damaa nar a bëgg a doon roi des arènes damay bàyyi làmb te ku lu wa lu làmb am ku kuy bëre ci làmb lu am dinaa ko am bu mm-hmm. dee neex na Serigne Touba mm-hmm. may kontaan nag di ñaan saa borom képp ku nekk ci kaso rek yàlla teggi la natt boobu parce que metti na mm-hmm. diis na diir na yàgg na dëgg waaye tey su ma tëddee dinaa nelaw xaajum xel ngir bébé jën génn na beneen xel bi des mënatul nelaw tant kaw si sa génnul. macha allah macha allah. Mhm. Mhm. Mhm. ëpp doole néewal gi tëj nit dem xooli lu mu def gi yàlla nañ ko fa jëlee. amiin. jàpp nit ni ko ràpp tëj doo ko dem xooli lu mu def nga tëj ko ay année ni ko demal toppewuñ la dara lañ doon xool gisuñu ko tant que bàyyi wuñ ko wax dëgg yàlla suñu réew dina dina yéex a développé wu. waaw nan nan nan nan seggaat mbir yi. nan xoolaat mbir yi man boo demee ci dëkk yi nii dangay xam ni ndeke ñun suñu dëkk da dem ba danga koy xeeb ngir. weguñ seen doomu dëkk. nit nag bu tooñee war nañ koo corriger. ndax buñ ko corriger wu réew mi du dem. mais ana nan nga koy corriger ana bala nga koo corriger foo koy teg. loolu lañu war a jéem a jàngi loolu lañ war a jéem a xam ba noppi. waaw. ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal bébé Diène yàlla na kaso doon njëg njiglaayam yàlla na doon sangatu lépp luy ay bu àddunaam. amiin amiin amiin amiin amiin. ñooñu sama borom defal ko ak bu àllaaxira barke Cheikhul mm-hmm. li ma la mën a wax boo la ko daal mu di bég naa tey mbégte moo xamante ni si sama laa koy seereel waaw. Mm-hmm. kontaan nañ ci yow nañ ci bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf kooku mooy bébé yàgg na ci di wax Assane. waaw bi ñu soog commencé laa ko doon woo. Mhm. mënu ko woon a jot. mais maanaam Lamine waaw. dama doon jokkoo ak moom saa su ma paree ci bébé Diène rek moom laay jël saa su ma paree ci bébé jël ko ñuy waxtaan tout le temps ma leen di wax lii la lii la suñ borom pare na démb. xam mhm. ne di ngeen jaar fii. Mhm. lii muy wax nii nag wallaahi la asim ba mu nekkee sa prison ba sax waxam ju rafet. ak lu baax da ko doon wax bu may génn di ñibbi sama wàcc fa xele ya dama jooy ndax ñi ma fa bàyyi mm-hmm. walaay la asim booy wax ak moom dangay xam ne kii li may wax dëgg la ci moom mm-hmm. waaw fee mu nekk yàlla na ko fa yàlla taxaw bu mm-hmm. baax a baax a baax xol bu rafet la yor dëgg la man la xol bu rafet ak yëg-yëg ak ci nit rek lay ànd ak nit donc yàlla leen yàlla taxaw jàppale leen. amiin incha allah dafa leen jàmm. macha allah jàmm moo gën fii moo gën fee. jërëjëf kontaan nañ ci yow bu baax a baax di kontaan ci moom moo daan da kàddu gu mujj gi lan lay doon balaa kàddu gu mujj sax kan mooy favori. kan mooy favori. waaw ah. mooy Diouf gi. ah Youssou Youssou. Youssou mooy sa favori. waaw ah. <laughs> kan mooy sa favori yow ah. kan mooy favori. Youssou Ndour waaw mooy favori mooy nekkul ne yaa war a te de daa jënd galas. waaw day daa jënd galas kay. mooy favori Youssou Ndour <laughs> kon daal ñaata ñaata nga joxe. prix billet yi prix billet man xam nga samay billet. man amateur la du ma def mukk lu amateur di mere. Hmm. ndax amateur la ba tey jii. su ma gisee làmb ju ma neex damay dagg billet ñëw toog seetaan wala ma ñëw ñu ubbil ma ma dugg toog. Hmm. yaa ngi dégg noonu laay topp xele yi xele ba mbooloo mën a bëre mën a tuus lu mu def amateur kontaan. Hmm. ma jël la. te dimanche di nga ci xam dara. incha allah ci kàttanu yàlla di nga gis combat yu neex. Mhm. tuus mu neex bëre bu neex di nga gis ñu bëre ba ñëpp jóg taxaw. dibiteeri lëmbote ñëw nañ lëmbote lëmbote lëmbote am na booy nekk mu indi palaat fii dañ koy am na yu seex jaw taxawal yoo boo yoo xam ne mhm. gisaguma leen sax ma koy gërëm baax seex ku mu le grand coach ku mu wóolu la ku ma respecté la saa buñ xuloo rek mhm. man lay jubbanti ci liggéey bi macha allah gën maa bëgg li may def boo ma laalee rek laal nga ko moom man nga koy wax dara sax du mer nga may wax dara Assane Ndiaye nangam mu mer. Mhm. su ma jàddee raay bi damay xulóom moom ba bëna sib mhm. macha allah kon nit buy ànd ak yow loolu. Mhm. kooku maanaam yaa ko gën a rek ko dëgg la wallaahi la asim Cheikh Diaw maa ngi koy ñaanal jàmm rek ba li ma yéene ci moom barke Serigne Touba ma def ko jërëjëf Assane di gërëm ñëpp nag di woo bawol bawol yëpp làmb ji ñépp Ibomar si kàttan ñu teel a ñëw. Mhm. def nan daan def. 2000 3000 5000. waaw 2000 3000 5000. incha allahu rabbi. waaw amul benn problème. 2000 3000 5000 la. <laughs> dimanche la ku ne xam nga fa nga yàlla nga toog foofu. waaw am na beneen affaire ma mhm. nga may ma ko. Mhm. Baol TV moo koy def direct. lépp luy matériel. luye naa ko. teg ko. pour Baol TV wane boppam. Mhm. am na yoo xam ne. liggéey xalam di ca jaay am na yoo xam ne jënd naa ko. <laughs> c'est normal képp koo xam ne ñoo nga fi def direct nag. Mhm. <laughs> bëgg ñu am ak kenn problème. Mhm. bëgg na ñun ñëpp ñëw liggéey. ñu code daayuñu dara. mais nañ bàyyi Baol TV def direct. ñi nga xam ne mënuñu ñëw esaat. ñu ngi ci diaspora bi ñoom ñu seetaan ko foofu. loolu am na solo. pël bu rafet moo koy def. ak euh, ma Dia. ok ma leen di ñu di leen ziar baax di leen wax. yëf yaa ngi noonu Xaadim Anta Seck ak Ibrahima Seck ñu ne ci terrain bi. Mm-hmm. ñoom ñaar ñu sampu. jël kuréel yi. waaw nit moom da ngay gëm sa bopp rek. Mm-hmm. osé def li nga war a def wax ji jeex. jërëjëf. a bi dimanche la Iba Mar. Mm-hmm. gi lan la moo daan daal. kaddu gu mujj gi santaat yàlla bu baax julli ci yéen bi sant sama ñaari waajur di sant sama soxna aw buru këram maa ngi koy siyaar bu baax a baax ah wallaahi ndeysaan. di nuyu Mohamed suma xarit. sama boy bi Mohamed moom temps sama boy la di la siyaar yow Alaaji Lami Seck keroog da ngaa wax lu am solo mooy kam maanaam suñu mbokk presse bi keroog da nga ko wax nga ne làmb Assane Ndiaye jaa ngi ni ñu bëri demuñu jëli mbëri te bu ñëwee jox ñu leen accréditation ñuy xuloo waxuma ko nag pour jaxase kenn ak kenn mm-hmm. Mm-hmm. man bu làmb taxawee du ma xaar promoteur woo ma si dara mm-hmm. damay dem def la ma war suur ba ma xaar li ma warlu ak yow ndax di nga ko def wala doo ko def côté boobu moom képp koo xamante ne promoteur tëgg na combat jëli woo benn mbër bu suur baa boo ñëwee loo fa jële yaa tooñ sa bopp sikk nañ ci promoteur yu bëri nag te maanaam suñu jikko wala li ñu ñàkk def ñoo tax ñu sikk ñu ci loolu mm-hmm. di siyaar saa Touba di ko wax na ko incha allahu rabbi dina teew këram dinañ teew saa dinañ ko gunge ci lépp nag parce que tamit moo ñu ko won lépp baax la maaraa xale daal wax dëgg yàlla fan yi moom yàlla na yàlla xeeb doolu yokk xam-xam bi barke Serigne Sall di siyaar Abdou Tall bu xarañ loo Ibrahima Kanté Tarki Mbaye non Abdou Tall bu mbay Abdou Tall borom borom Petersen. <laughs> Abdou Tall borom Petersen maa ngi koy siyaare bu baax a baax a baax di siyaar waa Bentali yëpp waa ñaatali waa Grand Dakar ma kenn di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp Lamine ba dimanche ak jàmm incha allah incha allah rabbi xaaral ma ne sekk dagg soble. jaas bu ndaw adversaire yi deux Ziga mooy mooy mooy publicité tey Lambote. waaw Lambote eh, xaaral ma andi la dibiteeri Lambote xaaral ma andi la. tey dafa sañse rek tey da ah, waxal rek. Lambote macha ñoo fi nekk yàlla na yàlla defal jàmm. ok tey dafa sañse kenn ñoom. waaw Omar Omar Faye Omar Raskas moom ma génn fii nii am zo bu Raskas maa ngay sant di ko moom mu génn fii ay bag la ma laal ay bag la ma laal waaw eh, di mën a ñàkk di sant sama waa ji saa Touba oh. saa Touba sama waay la Alioune Kale <laughs> bu sa waay non saa Touba bi ma koy xam xamoo ko bi ma koy xam dé na kooku li ñu boole dafa bari mën ak moom so ma tool waaw si 842 42 11 mooy débiteur la bëri. waaw ku ku bëgg yàpp bu nooy. mais am na beneen débiteur yi. 842 numéro bi rek. 842 42 di sant la ñu dal bool la ñu dal bool. la yàlla moo ne. la in sakartum la asidanakum. waaw boo santee mu doomu aadama doo sant nit. Mhm. kii jàmbaar la. gën la daf ma wax. non non la la in sakartum ko. bu ngeen ma sante ma dool leen wala in kafatum inna asaaba la sadiid. waaw waaw dama dama jum yàlla moo wax loolu. <laughs> mais yàlla tamit dafa xam ah. ngi sant Assane Ndiaye waaw naa sa war a taskuro walla. <laughs> xam a xeebante. Mhm. te rawat na ñun làmb. mais moom xeebu ma benn yoon gis naa ñu ñooy defal jàpp ci yóbbu na ma ci kilo bu mag Cheikh Abdou Karim Mbacké. Hmm. yóbbu na ma feneen ak feneen maa ngi koy sant di gërëm di sant soxnaam bu baax Mm-hmm. yaa say géey aw ma fayam yàlla na ko yàlla fay mm-hmm. ñu ngi lay sant di la gërëm merci beaucoup olof Njaay moo ne mm-hmm. ku def lu baax ñi wax ko te moom boo demee Touba dafa ëmb ay rakam jàppale leen kon bu jàppalee keneen wàcc na loo mën ren yàlla na nga ko mën a déwén yàlla na ci làmb ji mais li mu ñu defal gisuñu ku ñu ko defal kon ñu ngi lay san di la gërëm Assane di ñaan bis bu réussir total sama waa yi saa Touba la grand marabout uh-huh. waaw ku bokk ci keppaaram jariñu uh-huh. bokk nañ ci keppaaram maa ngi muur ànd ak jariñu nan <laughs> yàlla na ko yàlla defal jàmm ak kaana booy sama waa ji di sant waa parcelle 1 26 fi ma jóge di sama yaay bu baax di sant sëriñ Abdou Karim Mbacke naar maa la bu tàgg teraanga defal sëñ Baara sant di sant kan sama waa ji Ibrahima Kante sëriñ si sëriñ woon ak ñaari jëli yi tarkindaay am après nga peese. oui ma dimbali ma rek. am na non lii 6 kilos waxuma 7. lii dafa man Assane léegi ñu andil man mënu mënuñu koo lekk. lii mënuñu koo lekk. lii man man yàpp bii xam nga man maa ko jëli ci suuf. mais man lii ma gis nii dafa diis lii mënuñu koo lekk. waaw dund ma dund ma ah non Mohamed jënd xar año man kay lii par man bu ma doon teel a est la jëm si wala. non ma ko lii dafa bari mënu ma ko lekk. kii Cheikh Diaw la ma lekk as xam nga ndax bëgguma ñu wane lekk bi. Mm-hmm. am na ñu toog réeruñu. waaw waaw waaw. am na ñu toog yoruñu luñ ko jëndee. cey cey ndanam. waaw maanaam mm-hmm. nit da xool. sa mm-hmm. bopp ak leneen. waaw moo tax bëgguma ñu wane ko nañ ko wax rek. macha allah kon waa Gambie waa yaa Ndumbé. ma ne sa Mariama la de. Mariama mu ngi nga fële Dubaay. Mariama bu ama ñu ngi bëggee ak le grand champion. la gën a baara mais mais nuyu sama xarit yi nag ah di nuyu. Toldo mm. euh, Billy. Mm-hmm. Ah, Toumani Toumani ñoom Cheikh. Abo Seng Seng Abo xam nga gars yëpp. bëgg nga leen leen di bëggee. waa ah, diaspora sama xel ñoo xam ne dafa fattu. jërëjëf waa diaspora bi yëpp maa leen di. ziar bu baax a baax kontaan naa ci mhm. comme ni ko waxee message yi. Abdou Petersen. waaw Ibra Diouf sama xarit la waaw ah. jox na ma tissu yu bari yu bëree bëri jox na ma jox na ami collègue maa ngi koy sant dinañ la ñoom mhm. ñëpp dinañ leen mhm. TV yaatu na ak lu mën a xew daal kontaan nañ ci ñuy bàyyi xel. Lutte TV. ak yeneen site internet yëpp ndax yaakaar naa ñoo bokk. Mhm. liggéey ñi leen di seetaan. dëgg la waaw ah, tamit kenn du fi kër gu mag bi. seetaan boobu mhm. mooy seetaan mooy seetaan. seen lam mhm. kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax di jox ñëpp rendez-vous dimanche incha allah rabi stade Iba Mar Diop ba production. jërëjëf.